والقلم وما mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobu boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rasoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions cinq mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA C3S mi ko yëgal jiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. نعمة ربك بمجنون Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé.

di ànd ak yéen ci suñu émission bi ñuy wax shumuliyatul islam la globalité de l'islam ñuy ànd ak yéen ci émission bi ci fii si Dubaï ñu nekk en face ñi ñuy wax euh, Dubaï Mall euh, di ñaan borom subhanahu wa taala suñuy kàddu fekk leen foo leen mën a ne ci àddina bi euh, ci jàmm ñu ñuy waxtaane toujours la globalité de l'islam parce que li ñu bëgg moom mooy jullit bu nekk fu mën a ne ci àddina bi rek mu xëy kunnu l'islam waaw ko gis rek ñu xam ne kii c'est un musulman waaye bëgguñu koo xam ne buñ la gisee rek ñu jàpp ne jullit nga ci apparence kese non mais ñu xam ne jullit nga ci xol jullit nga ci biir jullit nga ci jëf jullit nga ci doxalin jullit nga ci dëkkuwaay jullit nga ci mentalité mais jullit nga ci xol ak ci lépp donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg donc lislaam diine bu neex la lislaam dafa noble lislaam dafa rafet lislaam vraiment bu ñu xamoon exact la muy euh, dégager ci ay xéewal vraiment dañuy daw di njëkkalante ci mboolem keno yi nga xam ne taxawal na ko waaye itam ci lépp loo xam ne santaane na ko parce que euh, amuñu leneen lu dul lislaam leneen lu ñu am lu dul l'islam rek mu du ñu wax perte la waaye ci dëgg dëgg dëgg ëllëg mun nañoo ne perte la quoi ci àddina xam nga rek day xaw a métti moo tax l'islam comme niñ ko waxee ci suñu émission bi nga xam ne moom la wees moom moo wees mooy dafay boole àddina ak boo amee àddina am àllaaxira mooy am nga lépp loolu la lislaam bëgg moo tax suñu borom wax ne qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibaadi wa tayibaati min ar قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون waa ana kan mooy tere sama jaam ñi waaw xéewal yi nga xam ne moom moo ne ci àddina xéewal yi nekk ci àddina bi réew mi ñu nekk yaakaar naa ku fi ñëw muy Dubaay di nga xam ni yàlla am na xéewal yi mu may jaamam yi ci kaw suuf waaye am na lu ko dàq yow mal xiyaam la nag foofu la mbir ma dëgg dëgg dëgg parce que li fi am yëpp day jeex te boo ci ëppalee mën na laa gaañ moo tax yàlla nag luñ ñuy wax fii moom mooy yow en tant que jullit fi dunia xasana ci lislaam bi mën ngaa am yiw ci àddina nga xéewalu ci àddina bu baax a baax ci bànneex yi la yàlla defal mais lépp nga jaarale ko ci yoon kon moo tax mu ne ane kan mooy tere sama jaam ñi ngi xéewalu ci bénéfice àddina bi parce que am na ñoo xamante ne fii dañ jàpp lislaam moom doo dëkk fu rafet doo tabax lu rafet doo sol mbub bu rafet doo tuuroon parfum bu neex bu cher doo dugg ci oto yi baax doo am dëkkuwaay bu rafet doo dund ci environnement bu rafet comme niñ ko gisee fii ci réew mi ak suñu réew aussi ba tey waaye yàlla suñu borom subhaanahu wa mu ne loolu man maa ko defal sama jaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ma gëm fii ci àddina ñi koy bokk ak ñeneen ñu ko gëmul c'est-à-dire plaisir àddina bi ak taaru àddina bi jouissance beeg lépp décor yeeg xéewal yi yàlla ne ki gëm yàlla ki gëmut yàlla mun nañ ko bokk ci àddina ki yàlla sax mun na ko ëppale ki gëm yàlla ci àddina waaye nag yowmal qiyaama xaalisatan nag lilladina amanu waaw c'est-à-dire xaalisatan yowmal qiyaam bi loolu lay tekki mooy que ne ñi gëm yàlla ci àddina bi yowmal qiyaam ñoom rek ñooy bénéficié ñoom rek ñooy bénéficié ci xéwalu borom bi subhaanahu wa taala te moom mooy aljanna aljanna nag dañuy wax ni fii Dubaay aljanna suuf la aljanna teer la waaye ay wax la rek dëgg la ah am na lu fi yàlla def waaye nag aljanna fiiha maa laa aynun ra'at l'islam da lay defar pour nga am li yonent bi sallallahu alayhi wax te yàlla wax ko ci xadiisul qudsi mooy fiiha maa laa aynun ra'at li ne ci àddina bët musu koo teg bët mët mat bët musu koo gis c'est-à-dire non imaginer lu neex lu luxe lu rafet lu taaru lu baax nee na noo ko mën a mën a mën a mën a gis fu mën a doon mu ne aljin al lii na ci ci aljanna mënoo ko gis si àddina bët musu ko gis te du ko gis mukk wala uzunun samiat boo ko doon wax tamit di ko nettali nopp musu koo dégg tam te du ko mus a dégg wala xatara ala qalbi bashar xel tam mënu koo imaginer kon moo tax mbokk yi comme l'islam bi ci loolu la ñuy woo kon nañu ànd ñun ñëpp ñu fonk l'islam boobu ñu gën a taxaw l'islam boobu ñi gën a jox l'islam boobu li nga xam ne moom mooy yitte parce que moo ñuy jox li kenn amut li kenn mënut joxe waaw l'islam lim ñuy jox kenn amu ko te kenn mënu ko joxe kenn rek moom moo ko am mooy suñu boroom kenn rek moo ko mën a joxe mooy suñu boroom looloo waral nag lislaam bi ñu war koo gën a fonk ñi war koo gën a jox yitte suñu yitte yëpp suñu xëyee suba ba ngoon na doon lislaam l'islam loolu la bëgg mooy mu doon système de vie si ñun mu nekk loo xamante ne suñu xëyee am nañu rendez-vous ak borom bi subhaanahu wa taala ban rendez la moom mooy julli julli boobu ñu gën koo jox cër julli boobu ñu gën koo respecté julli boobu ñu gën koo fonk parce que si la ñuy télécharger suñuy batterie xol si la ñuy télécharger suñuy batterie ruux si la ñuy télécharger suñuy batterie bi nga xam ne mooy doxal suñu euh, mbooleem cër moom la ñuy jëfandikoo ci journée bi moom mooy charge bi nga xam ne tey booy tëdd guddi la plupart di nga branché sa téléphone ngir mu fees booy xëy nga mën koo yore naa la journée journée bi nag li ngay doxee ak téléphone boobu mu mën laa servir mu mën laa njëriñ l'islam nag moo ko raw te julli bi ngay def noonu suba teel bi moom moo ko raw boo joxee ba tisbaar jot tam nga dem chargé waat téléphone ba mooy ruux ma mooy xol mi mooy yaram bi nga téléchargé ko ci jaamu yàlla donc noonu naka noonu ainsi de suite jaamu yàlla yëpp noonu la kon mbokk yi nañu gën a fonk suñu diine gën a fonk lislaam bi lislaam bi nekkul diine boo xamante ne bi nit ki de ciy nekk nag nekk ci en désordre addina bi réew bu bëgg a dox réew bu bëgg a avancer réew bu bëgg àgg fa mu bëgg àgg dafay am organisation am hiérarchisation l'islam loolu lay jàngal moo tax suñu demee si julli kese dong dong lépp luy doxal addina tey mi ngi si biir julli julli dafay am organisation am hiérarchisation organisation mooy dafa fu ñu koy defee dafa am fu ñu koy taxawalee dafa am niñ koy defee dafa am niñ ko organiser mu am ku jiitu am ku si pop ak ñu topp si ki jiitu mooy loolooy hiérarchisation bi dañuy am imam waaw bu ñu amulee imam julli du am du baax waaw tey bu ñu demoon ci jàkk tey mu am fukki imam fukki imaam yi nañuy mën a mën a mën a jàng imaam Sudaysi taxaw imaam Xuzayfi taxaw imaam euh, Grande Mosquée taxaw imaam euh, jàkka yi Tuubaa taxaw imaam Alfala Kolobaan taxaw imaam ñëpp taxaw waaye imaam yooyu ni ñuy bari bari bari bari kenn rek mooy jiite faaw ñu jiital kenn loolu mooy lan mooy hiérarchisation faaw mu am donc loolu mooy tabax àddina loolu mooy tabax diine loolu mooy tabax mboolem société boo xamante ni bii wala communauté boo xamante ne avancé na egg na ci fi nga xam ne moom mooy ci développement dëgg dëgg kon loolu mooy philosophie lislaam loolu mooy gis-gisu lislaam loolu mooy doxalinu lislaam te loolu la ñuy ànd ak yéen ci suñu thème bi nga xam ne suñu euh, sujet bi nga xam ne moom mooy la globalité de l'islam kon la globalité de l'islam mooy li nga xam ne dalay déggloo sa diine ci façon boo xamante ni bi doo génn ligne ligne bi nga xam ne moom la la borom subhanahu wa taala rëddal ci àddina doo dépasser limites yi nga xam ne moom la la tegal doo doon koo xamante ni bi da ngay yàkkamti sa sa sa sa sa sa sa doxalinu àddina wala yàkkamti li nga xam ne moom la la borom sa wa taala dig mais lépp danga nga koy jaar da ci yoon parce que yàq yàkkamti mooy waral nit ki burle foo yàkkamti mooy waral nit ki fa mu warut a jaar tali bi autoroute la fii dañ nekk bu fi kenn jaar mooy ci oto mooy ci tànk moo xam oto nga yore ci véhiculé moo xam piéton nga ngay dox sa tànk waaye am na yoon yoo xam ne foofu nga war a jaar parce que fee boo fa jaaree mën ngaa indi problème mën ngaa lor sa bopp mën ngaa lor keneen bu fekkee tam na nga war a jaaree jaaree woo fa tamit mën ngaa loor sa bopp mën ngaa loor keneen kon nag àddina pour mu dox faaw mu am ay loi loi yooyu moo tax l'islam tëgëral tëralal ñu ay loi dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd ñu comprendre lislaam ñu bañ a jàpp ne l'islam diine la boo xam dafa métti diine la boo xam ne ay charia dafa métti charia mooy loi rek waaw charia mooy loi rek ah mooy loi yi ñu tëral ci àddina tali bi sens interdit la réew mi di def ak lii kenn kenn kenn kenn waru koo def dañ koo tere ci biir réew mi ñu ne Macky Sall daf koo tere président de la république wala ñu ne loi bi daf koo tere parce que Macky Sall terewu ko parce que daf ko bëgg a tere rek wala loi bi terewu ko parce que daf ko bëgg a tere rek déedéet mais dañoo bëgg réew mu dox pour mi dox nag il faut que mu am organisation il faut que mu am hiérarchisation donc loolu mooy lislaam lislaam bi nañ ko comprendre loolu moo tax bés bu ñu comprendre loolu l'islam bi rek war na yàlla suñuy réew yi suñu fépp su tàmmali suñu bopp tàmmali suñu bopp dañuy nekk suñu gouverneur bopp suñu gouvernement wu bopp mooy man ma gouverner sama bopp gouverner sama soxna gouverner sama borom kër gouverner sama njaboot gouverner samay doom loolooy tax ñu mën a avancer kon mbokk yi loolu ci gàttal moom lañ leen bëggoon indil ci li nga xam ne moom mooy seen thème la globalité de l'islam mooy seen thème euh, chumuliyatul islaam di ñaan borom santam mu ngañ dégg ak topp kon tey ñi ngi àndoon ak yéen fii ci Dubaay ci Dubaay Mall la ñu nekk nii en face di am ak yéen chumuliyatul islam ànd ak yéen ci Ali Imran di nuyu suñu techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ñoom ñooy réaliser émission yi waaye di jël nuyoo di ko beral ki nga xam ne mooy suñu sëriñ di suñu mag di suñu papp di suñu kilifa mooy al ustaadul jalil al ustaad al hakim Oustaz Alioune Sall waaye ki nga xam ne moom laay àndal ci ak jotaayu ak tadabbur mu Serigne Mbacké Sylla aussi ñu ngi koy jar beral nuyoo Fat Diallo mi nga xam ne aussi tamit moom moo boot Ali Imran TV mu jaral ko lu ne muy dox guddi ak bëjët yi sonn ñu ngi koy di ko ziyaare bu baax di nuyu di ziare Pape Doudou ak Laay ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ci technique bi ñoom dem waaye tamit di nuyu képp koo xam ne tam yaa ngi topp émission yi di topp mboolem émission yi daw ci li nga xam ne moom mooy euh, Ali Imran TV di ñaan borom subhanahu wa taala mooy dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal c mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeeko ci jongante boobule boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions cinq mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA c s ñu ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alquranul karim mise en place neuf ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بِرَبِّكَ بِمَجْنُونٍ Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert.